jërë ngeen jëf fii la fuuta féete futu lay tuñ Macky Sall mi ñuy njoxtal ak rumandaatal ne troisième mandat dafa nekk ci xel mi suur suwa ne nañu yokk na ci xar mi karaw yëral xët mu njëkk yéenekaay bi keroog samedi bi waa APR doon def seen lancement wante de carte journal bi ne nañu fa la président Macky Sall waxee ak les waxul dane gaayam yi tey jii dafay bés bu spécial ci ñun bésub saafonte ci diggante militant yi APR yi mu ne leen li ma bëgg mooy ngeen gën a soobu ci njaayam carte yi bu baax a baax wàcc bi occuper leen terrain politique bi bu may kenn lenn narangi seere ngeen dialogue bu dëgër këcc Vox Populi ak journaliste ko xëy ñu xamal seen xët yu njëkk li président Macky Sall xamal ay militant keroog ca ndajama mu di l'heure est au combat lu waay jàppoon na ko bàyyi te xam ne waxtu xeex waxtu wàcc ci terrain bi waxtu defante jot na lise ko nañu dem na ca ba di leen wax ne parti politique bi teg tànk fii ci réew mi parti politique bi gën a mag ci réew mi ñun waa APR la anki dina kay nañu li mu bëgg moom Macky Sall nee na moo toll na ni ne keroog samedi ca ndajama jël na kàddu gi wax ba sottal tuddul fenn waxi troisième mandat ki tudd waxi troisième mandat mi ngi ñuy xamal ne moo di ministre communication maître Moussa Bokar Thiam démb ci RFM ci émission Grand Jury fa la waxee moom maître Moussa Bokar Thiam ne Macky Sall mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yu 2024 yi directrice de l'alphabétisation di Ndeye Nam Diouf mel ne ku naan ñu ci xët mu njëkk source bu ñu ruubee wax ji ñun waxuñu waxi troisième mandat ngir président li bëgg di ko wax moo di ñaareelu quinquennat ngir Macky Sall ak lu mu ci mën di doon ak lu mën di xew na nit ñi xam ne Macky Sall tàmbali na campagne am ngir am troisième mandat ndajeem lancement wante carte yi woon keroog ak li fa jib nay kàddu journal Tribune nee nañu doy na ci sëkk firnde ay xeltukat ak i gëstukat ci wàllu politique di analyse politique ku ci mel ni professeur Moussa Diaw moom li mu jàpp boo ko ci l'observateur moo di Macky Sall ak ni mu doxalee keroog ak li mu wax jéego beneen la bu mu tekk jëm ci wuti troisième mandat l'observateur teg ci waxaa ñuy te liñ jiital APR gi wax waa këram yi keroog li mu ne leen ne bu leen bàyyi yëf yeeg bi mobiliser wu leen wane leen seen wan leen ñu ne feneen la ñu jëm ñun fa ñuy xool du fii fépp feneen di ci journal l'info ñu fekki fa keneen kuy wax ci leneen ubbil yéenekaay bi moo Modou Fall xëy dalal ci xëtam mu njëkk di waxtaan ak moom ci ëllëgu Benno Bokk Yaakaar moom directeur de l'emploi président bu parti bii di RV dëgg moo wóor doon it coordonnateur bu coalition républicaine sàmm sunu réew nee na dañoo war a tas Benno Bokk Yaakaar ndax atteindre na ay limitam bu doon watala ñu ne yegg na gaaraas bu ko defee ñu taxawal geneen kuréelu politique maanaam beneen coalition boo xam ne ña cay nekk nit yi valeur lañu yu xereñ am xam-xam kàttan ak mën-mën mën a jàppale président Macky Sall ba mu amaat ñaareelu mandat bu juróomi at ndax lu jaadu la folli Macky Sall fal Alaaji Mali Gakou journal L'Info nee nañu ci fii la waa Grand Parti taxaw ñoom waa Grand Parti yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne keroog def nañu seen ndajam investiture ba tànn kii di Alaaji Mali Gakou def ko seen candidat ngir mu doon cinquième président de la République bu Sénégal Sud Quotidien nañu lu jëm ci candidature opposition bi ci élection présidentielle yu 2024 yi Alaaji Mali Gakou bàyyeewul yëf yeeg fa Sonko teggee tànkam Gakou teg na fa bosam ki teg soog Sonko njiital SAPCO ca rajo Sud FM ci émission jano bi moom secrétaire général bu parti SDD ŋàññi na fa stratégie di doxalinu Ousmane Sonko ci mbirum Sweet Beauté bi nee na coow lu bari rek manipulation yu rëy yi jaru ko fi bu wóoloo boppam mu Ousmane Sonko na dem ca kanamu yoon di justice ragge jëf ab daram moo gën di bëgg a gëm loo nit ñi lu amul li am ci dogal bi nguur gi jël ngir wàññi njëgu dund gi soleil national nee nañu doxul journal bi sukkandiku ci reportage bu mu def ca marché bu Castor la mu fa moo di commerçant yi dañoo mel na ñu déggul dogalub nguur gi njëg yi wàññiwuñu ci dara amul benn changement bu ci quotidien di ko dëggal ba di ñu wax ne bu nguur gi wàññee njëg yi commerçant yi ñoom wàññiwuñ ni quartier yu ci yu ne Grand Yoff Wakam ñaari tali njëg yeen daan jaaye la ñuy jaayee ba léegi nee nañu bala ñu leen di wàññiloo nañu wàññiloo grossiste yi leen di ravitailler ba pare amit yeneen boutique yooyu yéenekaay bi nee nañu li ñu bëgg ba di ko sàkku ci nguur gi moo di dérogation maanaam ñu may leen ba li ñu yore ci ay stock ñi jeexal ko soog di mën a wàññi njëg yi journal Tribune am na ay jaaykat yu boole ak ñaw ak muus ci mbir ndax njëg yi leen nguur gi wàññiloo wàññi nañu ko waaye dañoo yokk yeneen njëg yi